des femmes parlementaires. Donc l'idée devait venir de nous. Mais Alhamdulillah, ces braves dames, toujours debout, sont là pour nous accompagner et je vous en remercie. Monsieur le ministre, je dis que c'est un projet de loi qui vient en son heure, certes, parce que c'est une loi qui va non seulement accompagner la femme, sécuriser la femme, mais surtout l'enfant. Et moi, c'est cet aspect qui m'intéresse le plus. Je suis femme, je suis mère, je suis sœur. Donc ce sont mes sœurs qui sont violées, ce sont mes enfants qui sont violés, ce sont mes tantes, mes mamans qui sont violées. Personne n'est épargné, aucune femme n'est épargnée. Donc on peut bel et bien voter, voter la loi. Mais Monsieur le ministre, il quelques inquiétudes. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur ces points-là. Je pense que dañuy nekk ci dëkku diine ñaari religion nekk fi les deux religions révélées boobu nekk fi ma yaakaar ne nag yàkkamti ak gaawtu bu juree doom rëccu lay tudd ay loi yàgg nañ mais à chaque fois pour ñu mettre ko en application day indi problème parce que les chefs religieux loo leen bañ bañ bañ xam ne am nañ poids ci dëkk bi j'aimerais bien savoir est-ce dem nañ waxtaan ak ñoom parce que nag bu fekkente ni dañuy jël yenn définition yi yi nga xamante ne Occident moom la ñuy def viol wala consentement et je sur ce mot consentement bëgg ko def ñun suñu moomeelu bopp dina am problème parce que nag bu ñu nee consentement dans la société sénégalaise surtout la la société musulmane problème dina am parce que may bokk sama consentement joxe naa ko ci kaw mais teew ma woon ci jàkka ja sama borom kër yi teew woon ci jàkka ja donc mënuñu wax que ni consentement boobu ñun joxe nañ ko ci biir jàkka ji et j'aimerais bien ñu laajte xool ndax consentement définition bi ko Occident jox ñun moom lañ koy jox bu fekkee ñoom lañ koy jox moi je dis que y a problème parce que nag am na lu ñu wax ci sëy mais Occident bi am na nu mu définir consentement boobu ci biir ménage et naa loolu ñu reeral ko bu baax monsieur le ministre beneen les gens sont beaucoup salués aujourd'hui li nga xamante ne moo ñu fi dajale mooy projet de loi bi waaye nag defe naa 2004 ak léegi soriwul L'homme Wade généreux ki nga xamante ni ñëpp xam nañu léppam jigéen la et pas mal de femmes sont ici dans la salle bu voté wu woon waa parité wala porté wu woon combat boobu dañ fi teew tey jii nii donc des fois rek day baax ñu dellu tuuti tuuti ginnaaw. pour xam ne dafa am toujours comme on dit l'état c'est continuité mais toujours am na koy tracé pour ñu mën a appliquer et sur cela je remercie le président Wade bi nga xamante ne 2004 dafa demoon dañu jaral mu def mag pour ñu yóbbu ko si yeneen président yi pour ñu ratifier contre violence yi ñuy def contre les femmes monsieur ministre beneen point bi mooy dinañ si waxtaan parce que nag bu fekkente ni dañuy voter loi pour voter ko rek dina am dafa doy dafa doy du mën a nekk en application il faut que ñu am mesure d' accompagnement sama yaay wax na ko léegi bi muy wàcc dañuy dem ba benn instance sax ku am doom bu góor di tiit parce que da nga naan personne n'est épargné donc loolu war nañ si war nañ si mën a waxtaan ba mu leer beneen point bi monsieur le ministre mooy cacophonie bi ma wax je pense que bu faites partie des ministères les mieux logés et les plus près logés de toutes les institutions de ce pays monsieur le ministre nga amendement bi ñu servir à main levée ko def sa signature nekk à main levée aussi donc yooyu mu nekk problème yoo xamante ni dama naan bu fekkente ni bëgg nañ di atteindre suñu objectif dañuy dellu di waxtaan loi bi gis naa ni war nañ ko mën a jàllale mais nañ ko jàllale dans les règles de l'art ña war a yëg nañu wax nañu yëg ña war a wax nañu wax si pour que bu subaa réticence du am benn boor mais bu fekkente ni dañuy tëju metti nañu ñëpp am nañ métti du xol mais nag war nañ ko mën a def ba nga xamante ni dañ naan tépp rek lépp sotteendoo ba débat bii tey waroon na mën a ñàkk si biir assemblée bi mënoon nañu ñëpp voté loi bi à l'unanimité mais waxtaan ba waroon balaa may terminer aussi mooy li ma wax ko cacophonie bi war nañ ko éviter mais bu ñu paree nag ba voté loi ba mu jàll nañu xool nag mesure d'accompagnement ya il y va de l'intérêt de nos enfants il y va de nos intérêts nous mêmes femmes parce que nag dañu nekk si terrain bu xaw doy waar gis ngeen femme politique yi ñuy rey gis que ne dañuy génn jusqu'à n'importe quelle heure pour l'intérêt de la nation sénégalaise demande sociale bi nag ñëpp xamoon nañ ko muy demande sociale boo xam ne jigéen ñi ñoo ko porté muy ñu criminaliser euh, le viol mais monsieur ministre defe bu fekkente ni demande sociale bi dafa émané si femme émané si président de la république bi nga xamante ni moo signature suprême réew mi defe naa demande borom nañ ko mën a respecté ba nga xamante ni lépp dina figuré si exposé des motifs bi dama yaakaar ne bi ñuy ñëw fi dañ ne boo bëggee comprendre loi bi dëggantaan boo liiree exposé des motifs bi lu sa jàng gàtt gàtt gàtt di nga comprendre loi bi li mu ëmb yëpp mais exposé des motifs bi leeru je vous remercie monsieur le président. merci honorable collègue. monsieur sera parmi les journées inoubliables de l'histoire du Sénégal. Monsieur le ministre, l'histoire retiendra dans les annales du, Sénégal, du pays les lois des deux hommes d'État libéraux Wade fils, Abdoulaye Wade et Macky Monsieur le ministre, nous devons rendre hommage à nous devons rendre un hommage mérité à son excellence, Monsieur le Président Abdoulaye Wade d'avoir instauré la parité dans ce pays, hommes-femmes dans les instances de décision, mais une mention spéciale à son fils Macky Sall, à son fils Macky Sall, à pour la protection des femmes et des enfants, pour la criminalisation du viol. Nous, femmes, fragiles que nous sommes, victimes de quel que soit, quelque viol qu'il soit, nous sommes mères des violeurs, et mère des violets. Monsieur le ministre, pour cela, nous devons conseiller nos enfants à faire très attention de leurs sentiments envers les filles ou en particulier envers les femmes. Monsieur le ministre, les, les pères, les oncles et les frères doivent se ressaisir pour leur comportement dans les familles vis-à-vis de leurs nièces et de leurs filles nañ bàyyi piis bi ba nga wax ko nañ ko bàyyi lu ñu rey loolu ko teg ba nga wax ko sa yaay monsieur le ministre pour l'homosexualité vraiment on va laisser les Sénégalais se juger eux-mêmes à toutes les femmes des associations et surtout l'association des femmes juristes monsieur Moustapha Niass sama xarit ma gën laa jàpp nag ndax sama góor bu baax boobu nga dem këram yàlla na nga gudd fan ak moom monsieur Moustapha Niass maa ngi lay félicité li ma lay félicité mooy ton grand frère le président Abdoulaye Wade avait bien donné des conseil de dire il faut travailler beaucoup travailler encore travailler toujours travailler vous son frère au moment le plus difficile du Sénégal où on parle de l'augmentation de l'électricité bu nous avez appris à boire, toujours boire, encore boire, toujours boire pour se séparer de l'estress. loolu mag ay mag rek a ko xam ñun xamuñu ko monsieur le ministre ma wax ne monsieur le président yow laa wax ba tey nga bàyyi tooñ bi nag li nga ñuy tooñe mooy xam nga ni ñu toll vous connaissez mieux que nous ceux qui vont voter contre na leer na leer a leer compte leen yëkkati leen seeni loxo yaa ko gën a xam. PEA une assemblée sans opposition est une est une assemblée nulle monsieur le ministre monsieur le président toujours yow nag da ngaa xamoon lii lu su weex rek ngay sol douzième ba léegi lu weex laa la xamal nga ko sol donc fogole mo xesinna nuun anda kem lemba nuun xu ga'na tew oxa andoona yee ko bugin fato ret xedin te cooxong o ten te ref o tewof o fi'angiran a ah, criminalisation criminalisation du viol a gatano saax le de a kaanu wegel ga'katiro ya'of ga'katiro ba'of ga'katiro tewof mais monsieur le ministre aussi il faut qu'il y ait un bon comportement des jeunes filles aussi parce que am na loo xam ne c'est attirer la personne nga sol paccal say ween sol sa sëpp bu gàtt vraiment des fois aussi les hommes sont agressés loolu tamit war nañ cee wax di wax ne daal ñu ngi gërëm ñaar yi ñi nga xam ne jaar nañ fi macha allah te am expérience kii xeex ba parité restauré wu ci réew mi di gërëm it ki nga xam ne nag wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg Sénégal gépp gépp gépp a tiitoon dañoo am ay doom am ay sët ñuy dem di jàngi di dem di lii vraiment et jamais on ne parle des enfants de de l'enlèvement de nos enfants amenés à des destinations inconnues kenn xamul fi ñu leen yóbbu te kenn du ci wax loolu tamit am na solo may ñaanal jigéen ñi ku am sa doom am am doom ju jigéen. ndax kat doom ju góor nga ci risque maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. monsieur le président. merci honorable collègue. La parole est à notre collègue Nango Seck qui sera suivi par notre collègue Mamadou Lamine Diallo.